asalaamaaleykum mbokki murid point info ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaan suñu kàddu fekk leen ci jàmm di ñaanal sëriñ Tuubaa sëriñ Muntaxa Bachir xalifa général kullu murid suñ borom yàggal ko ci liggéeyu maamam bi ba mu eggalee naalam yëpp ak képp ku nga xam ne yaa ngi bokk ci njabootu sëriñ Tuubaa gi ak bépp seexub sëriñ Tuubaa ñu dellu si waat di leen présenter seen émission Asrar jamono yi la passé gis ngeen ñu jëmm ji ñu jàkkaarloo ci écran bi sëriñ Xaadim Nooru la ñu seqoon waxtaan woo xam ne que ni dañoo joxe woon dig daje ni danañ eggale kon sëñ xaarim ñu bàyyi la nga nuyoog mbokki Mouride Info yi lay si daañu soog a dugg ci waxtaan wi. bismillahi rahmaani rahim rabbi asrif li sadri wa yasir li amri waxlul xuqdata min lisaani yasfaxu xawli ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sant Cheikh Ahmadou Bamba ñoo ngi ñaan Cheikh Muntaxal Bachir yàlla na yàlla dolli koo dimbale ba li mu bëgg a lépp mu def ci lu kawe jortam jërë ngeen jëf. jërëjëf uh, sëriñ Xaadim ci nuyoo bu am solo boobu di wax amin ci ñaan gu kawe googu di ñaan sëriñ tu yàlla suñu borom subhaanahu wa taala mu mayel ñu sëriñ Muntaxa Bachir fan bu gudd ak wér ba mu eggalee bépp naal bu mu naanal ci liggéeyu maamam bi suñu Xaadim am na lu lëmbee jamono. Mm-hmm. te ku dem ci réseaux sociaux yi gis ko. bari ñoo xam ne dañuy génn di wax ne que ne ay tradipraticiens lañ maanaam ay sëriñ lay yooyu asraar hmm. ñuy wax ci lu jëm ci wàllum nopp ana yow looñu ci mën a wax waaw wàllum noob day nekk na mbir moo xam ne mbir mu jafe la ndax euh, noob dafa bari ay façon baraa nañu koy woote di wax ne man nan koo teyit maanaam man nga des na la tax man nga des na mooy li fekk xamoo xeeti noob yi ni ah, ñu ëppantee doole kon suñu xaarim noob daa ami façon waaw noob dafa ami façon dafa am ëppante doole su fekkee nit ki yàlla dogal na am naa noob goo xam ne 24 heures mu jàpp nit ki am na noob goo xam ne moo la ko noobalee 24 heures mu jàpp ki nga bëgg a yàpp am na ci goo xam ne léegi léegi léegi léegi bu ma ko noobee balaa jant bee so loo bëgg ci nit kooku nga am ko waaye dafa bari ay façon ni leen koy la ràññalee ci ñu ko woo mooy leen bu fekkee nit ki danga koo soxlaal dara bëgg ci moom dara kooku takk moo ci gën a gaaw lu ñuy ñu tafli ci wëñ mooy li gën a garaaw ci jóoni jóoni ci nopp am na loo xam ne boo ko ta boo ko boo ko am na jat yoo xam ne boo ko jatee takk ci nit léegi léegi léegi léegi balaa jant bee so loo bëgg mu defal la ko waaye nag loolu du luy continuer ay pas-pas dañ koy fecc bu sangutoo rek mën naa dañ waaye bu fekkee eh, xeetu mu la goo xam ne dangaa bëgg muy continuer di sax xaatim moo koy def wala yaxub alxuraan lu mu gën a yàgg di gën a jàpp kon ñaari façon yooyu ñooyu ci am su fekkee nag nit ki dafa am rek loo bëgg lijjant ci moom moom takk ci gën a gaaw moom yor naa takk goo xam ne bu ma la ko takkee balaa jant bee so lu ma bëgg ci am ko ci yow. Hmm. kon daal daa mbir moo xam ne que sa bopp ba demee ci am ko. dama ne takk gi ma lay takk bu ma la ko defee dama naan la gaawal dem parce que li wër wër mooy takk googu noonu bu jant bi soo te gisewoo ak moom boo wëttu dana ko feebar. Hmm. takk lu dansé la. kon mbokk yi yéen a ko déggandoo. gaa yi nekk ci loolu nañ moytu wala ñuy lor doomi jàmbur euh, sëñ Xaadim ci li ma fi dikkal ci ay laaj mooy koo xam ne que ni soxnaam wala koo xam ne ka ni dafa nekkoon ak nit. Mhm. dem ba am lu dox seen diggante ba ak tàggoo am fa. Mhm. ndax am nga ci fexe. waaw loolu yomb na lu bëri la ci jamono ji te yenn saa yi da ngay toog ba yàgg dañu la diw ak diw sëy nañ waaye du nga toog tuuti réseaux sociaux yi ne ah divorce. Mhm. xam nga dafa am loo xam ne nii euh, faaw nga ciy dimbale nit ki. ndax nit ki du maye lu mu amul wàllum xam-xam nekk na mbir moo xam ne nii su fekkee xam nga ko te may lu leer da nga caa war a coppate di joxe saa yoo dee ànd ak doomu aadama ak doomu adama bu mu mën a doon ci àddina nga bind wala xadd karam naa banni aadama boo ko bindee ba mu yegg nga yaatal mi mi ca nekk yëpp def ci sa tur ak turam nga sangoo ko juróom-ñaari fan. amul menn mbindeefum yàlla moo xam ne nii naa tàqale seen diggante yéen ñaar bu fekkee da nga koo amoon te ñàkk ko bëgg mu del saroo innahu ala rajhi la xaadirun aaya ma lay jox nii su fekkee mën nga ko sa bopp dagg ko xeeti musallas boo ko daggee xeeti musallas nga wutal ko bayti xaal boo paree bayti xaal boobu ca ngay def turam def ko ñetti téere takk benn sangoo benn bi ci des nga wàcc ko ci bunt bi muy joowaanu innahu ala rajhi la xaadirun boobu noonu nga di ko sikkar li mub bu neexee sunu borom ñetti fan dana duggaat say loxo ci kàttanu sunu borom wala dana def benn signe boo xam ne nii boo ko toppee da nga am li nga bëgg ci moom ci kàttanu sunu borom. Ah, yow nag yaa ngi bëgg a jox yaa ngi yaa ngi ba bëgg a joxe yóbbulub tabaski de yaa ngi bëgg a joxe yóbbulub tabaski de ah, suñu xaadim mhm. ah, am na luñ ñu ci jamono ci xale yi teg mbëkk mi di mbëkk di dem. Mhm. bëri na lool dafa mel ne que ne am am kayit daa jafe. Mhm. amoo ci pexe. waaw kayit dama la am na ci benn secret boo xam ne man kayit moom koo xam ne ni yàlla dogal na mas naa caa jaar yow. am na ñoo xam ne ñu ngi may seetaan képp koo xam ne nii yàlla mas naa dogal jaar naa ca ak yow yàlla suñu borom may na ma ca ndam wàllum kayit dafa am nis koy wute nit ki man nga koy jox muy sangutu man nga koy jox muy takk waaye diggante sangu ak takk naam mën naa lijjanti waaye yoonu kayit dafa am weneen yoonu boppam woo xam ne ci yow du xam nga ñag mm-hmm. ñag yi ne ci àll bi xam nga kayit wu naaw dem tafe ci kaw ñag bi ñag fi ne kayit daf koo yomb fi lu naaw taq ci kaw ñag bi ci ñag boobu ngay am lu kayit woo jël am benn laaya boo ci bind am benn xaatim boo ko booleel nga for ci bant ñag bi boole kook moom di ko sooroo kayit woo doxee ca dina yàlla suñu borom jagleel la ko. Hmm. kayit woo maanaam ni kayit yombe ab ñag fi ne ñag kayit bu daw tafu ci moom. bu xam nga ñag. waaw mooy collecteur yi ne ci àll bi. xam naa ko waaw. koy def ay taxasi sump ak taxasi déem. waaw kayit wu naaw wala mbuus gu naaw dem tafee ca ñag bobu am luñ lu ñu ci defar loo xam ne nii bant yooye boo ko jëlee liñ lay jox ak ciuray liñ lay jox boko ko kayit woo wuti ci kàttanu sun borom dañ ko am ni kayit yombé ab ñak aw kayit dañ la yombé non wala mu ñeenti jot jaaral ci dara kon mbokk yi a ko déggandoo fiñ ñu fi rek ci ci ci lu gatt moy jamono ji gis ni Sénégal ñepp gi nguur gi fi jóge won nguur gi bës gi top leen ci yoon ndax walum yoon gogu non am nga ci bexé wa man mom yaram mhm. képp koo xam ne ni yàlla sunu borom dogal na ñuy jëflante ci wàllum yoon. Mm-hmm. xam nga am na ci loo xam ne ni gars yi dañ koy wete ñàmb duñ ko nangoo wax. maa ngi wat ci jëmmi Serigne Touba ji li ma lay defal ku ma ko dugg kaso ci kàttanu sunu borom. ah. barke alxuraanul karim li may def ci wàllum kaso bu ma ko defee amul ku la mën a tëj. Hmm? ak mën a doon billahi. nëbbutuma maa ngi nii. mbokk yi gaaw leen jël numéro bi Touba laa dëkk ñëpp xam nañu ma. gaaw leen xam nañu ma. li ma lay defal ci wàllum kaso barke xaadimul Moustapha su ma la ko defee mbindeef mënu laa tëj xanaa xamoo ne gàllaaj kaso am na ci gàllaaj yoo xam ne nii maanaam nga dee sax moo gën a yomb ñu tëj la. Hmm. waaw am na gàlla am na gàllaaj yoo xam ne boo ko jëfandikoo ci wàllum kaso boo namee tëdd kaso faatu. Hmm. am na ñoo xam ne fi mu toll nii boo doon wàcc rek di leen tëj diggante boobu mën naan fee feebar dee parce que duñ dugg kaso. Hmm. génn tëj leen am te mooy bàmmeel. limay lay defal ci kaw sa mo la ko defale barke khadim mustafa nit mënatu la tëj. fiñu ñu rek suñu khadim tabaski jub si xel yëpp nek ci xara ak xartum. ndax amna yóbbal boy joxe pour nit ñi mëna ganna gànnaayoom xar. wa lima ci joxe ci mu mu mu mu mu yóbbal bi moy da ngay bind. wadduha wa layli isa saja wa ma waddahaka rabbuka ma khala xalaa wala laaxiratu xayrun lak min l fala sawfa yu'tiika karabuka fa tardé jay yi jëleen bigi batu fa tardee boobu deel dat googu mom ngay ubbi. boo ko ubbee nga def ci sa tur ci kaw aajo ji nga bëgg nga def ko ci suuf wut ay quelque karawi xar nga boole kook moom sa ngook ci kàttanu sunu borom boo tëjoon sa néeg tamit yàlla sunu borom dana la dagan dana dana dana dana la dimbule ba am xar moom moom duutu la jaaxal moom ci kàttanu sunu borom wadduha wala lisa sa jaar wa maa waddaxaka rabuka maa xallaa wala laaxira xayru laka mina ula fala sawfa yu'tika rabuka fatarda mhm. loolu kat la la Jibril waxoon yonente bi alayhi salaam fala saw fa yuxtika rabbuka fatarda na nga xam ne sa borom fàttewul sama bit dama sori woon ñëwaatal jël naa sama bit ñëwaatal wadduhaa wa maa wadda'aka rabbuka wa maa xalaa wala laaxiratu xayrun laka mina al-uulaa wala saw fa yuxtika rabbuka fatarda ko waxoon yonente bi ne ko na nga xam ne kat sa borom fàttewul daat googee ga daat ga moom ngay ubbi nga def sa tur ci kaw def li nga bëgg ci suuf ak lu mën a doon nga boole koog loola sangoo ko yëmatuma cim xar kese la nga ko booleel sangoo ko bu neexee sunu borom insha allah rabbi yàlla sunu borom la ko jàppandal kon mbokk a ko dégg ci kàttanu sunu borom suñu xaadim la nuuru la looy tàggoo waaw xanaa di ñaanal ñëpp rek di ñaan yàlla sunu borom defal nu barke defal nu tawféex ba képp ku nu jaxasool nga sant yàlla loolu la ñuy ñaan yàlla yàlla nañu yàlla dolli dimbali amiin barke borom Touba jërëjëf sëñ xaadim nuuru laa kon mbokk yi yéen ko déggandoo sëñ xaadim joxe na yóbbal bu nga xam ne ku ko topp di nga amum xar ba am la ca topp kon ñi leen jox digg daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf